waaw si mbirim yàkkute fa courant boobu la kii di euh, Guy Marius Sagna sax demoon manifester ba yëngal euh, grille yu pale yi ñu ngi ko teg loxo ba tey yow ban jàngat nga am si acte boobu kii di Guy Marius Sagna defoon parce que mun nañoo jàpp ne c'est une première au Sénégal wala en Afrique sax gis euh, activiste bu dem manifester ba yëngal grille du pale parce que quoi qu'on dise pale nekk na loo xam ne mooy mooy symbole nation tamit sécurité la laaj est-ce que nekkul moom sax dafa wone faay sax. sécurité bu Sénégal. noonu non non gaa yee ko bàyyi noonu de. ah gaa yee ko bàyyi. pour mënoon ko téye. Ah. dañ ko bàyyi mu dem ba si biir bi. kon loolu piège la woon. piège la dañ ko piégé. noo may wax nii. man maa la wax lii. sérieux. dañ ko piégé. xam nga tey bu fekkee da nga nekk acteur boo xamante ni da nga nekk acteur principal. comme moom dañ ko soxla woon di loon ko wootal. wootal ba mu ñëwal boppam dañ ko soxla ko mu ñëwal boppam. donc il n'a pas été intelligent. waaw c'est-à-dire c'est ça le fond du problème. c'est-à-dire parfois. bu fekkee da nga xam ne yow da nekk un un élément déterminant ci ay xeex yoo xamante ne c'est des combats légitimes. parce que man kay jaaxal na ma dina nee naa sécurité kii Sénégal mhm. boo nekkee jeune am si réew. xanaa jeune du gaaw a dee. déedéet. bu fekkee ne yow da nga nekk koo xamante ni sa askan dala soxla. ci xeex yu bëri da nga bokk si ñu koy porté. bul def lu lu def bul gaawantu def loo xamante ni dañ la siy téye parce que ñi ñee la soxla. Mhm. donc lépp looy def na ko def ak intelligence moom gars yi dañ ko bàyyi ñoom ñoo ko tey bàyyi ko mu dem ba taxaw si giri bi. ba téye ko nag. man kay jaaxal ñu jël motif li tax ñu téye Guy Marius te loolu moom euh, kenn mënu see. Euh, non c'est-à-dire que noonu lañ ko def. Mhm. bien que liñ ko def du yoon c'est-à-dire que régime nekk un président day am day am hauteur day am dimension. da ngay am esprit de dépassement. donc mun nañu wax ne Guy Marius il dérange. ba non mais bien sûr bien sûr qu'il dérange parce que li muy def nii neexul nguur gi. déjà ak euh, gën na des fois bu ñu gisee euh, kii di Ousmane Sonko bu bu day nekk ci wet bi ak déjà moom njiitum France dégage. waaw loon xeex lii di français faag yëpp. moom laa lay wax dama ne. Mhm. il faut que xeex bi mu mu ànd ak intelligence. mu bañ a ànd ak précipitation wala buzz. parce que moom déjà moom dafa euh, il était en liberté provisoire. waaw moom laa lay wax ne. Mhm. xeex intelligence la du bërti bërti. Mhm. fougue de jeunesse bi. aujourd'hui tous ceux qui sont appelés à être des activistes. Mhm. dañuy xeex mais d'une manière aveugle. il faut parfois combat yu ñuy mënee. muy ànd ak gëstu ànd ak li nga xamante ne mooy njariñu askan wi tey le combat qu'on doit mener c'est de renforcer la prise de conscience citoyenne cest à il faut qu'on se départisse de notre manteau de de de de, de de parti mm tous des citoyens waaw cest foofu foofu mooy problème bi léegi sénégalais yi nag actuellement à travers la hausse de l'électricité dañ ci sentir maintenant seen fibre citoyenne xam na nag ñoom ñii nous les Sénégalais nous les populations nous sommes touchés et il nous revient nous-mêmes de prendre notre notre notre notre notre destin mooy quoi mooy ñoo lànk bi ñoo bañ facture yi nga xamante ni dañ ko yokk duñu ko fay te duñu nangu yokk ji nga xamante ni moom la ñu Macky Sall imposé te tegu ko ci dara. xam nga nit boo yokk da koy teg ci dara. waa ci baas ah, parce que yow tey yow mi toog nii munoo ma poser question boo xamante ni ne di ma wax na ma par exemple Macky Sall nee na ci lii la basé wu pour yokk courant bi. wax ma ko ñu fàtteekul rek euh, suñu mbokk internet yu ñuy jël en cours euh, ñu ngi euh, en direct avec sur Sénégal set avec le grand Oumar Faye bokk di njiital leeral askan wi ñu ngi am ak moom waxtaan bu am solo nag di ñuy gind bu baax ci wàllum yokkuteef électricité bi libération de téyi kaso kii di Guy Marius Sagna waxtaan bi dina am solo foog naa ko lool kii monsieur Oumar Faye yaakaar naa ne tamit fii wax nga fibre patriotisme euh, bu ñu war a am. est-ce que tamit nekkul tamit nos politiciens dañ koo manqué parce que gis nee na ñëw neen premier xaw a def seen euh, show. Euh, kenn ñoom ñenn si ñoom ñëw neen mais dañoo gis ne rencontre yi mobilisation yi dafa des. te ñenn bu ñëwee si ñoom ñoom leen intéressé rek mooy wàllum euh, troisième mandat bu mag yi Sall nangam nangam mais lépp euh, du ñu wax sax exactement si loo xam ne moo moo leen fi indi muy euh, yokkuteef courant bi. waaw xam nga est que loolu tamit du problème. gis nga bu fekkoon ne dañuy wax affaire affaire fichier électoral nga gis ñoom ñëpp ñu. jóg. bu ñu waxee affaire bi ñu wax affaire parrainage. ñoom ñëpp a jóg bi ñuy wax problème mu carte d'identité ñëpp jóg bi ñuy wax affaire u chef de l'opposition ñoom ñëpp a jóg mm-hmm. bi ñuy wax ci rationalisation de parti politiques ñoom ñëpp a jóg mais tey di ñu wax wàllu courant ñoom ñëpp jóguñu wallaay te ñoom ñëpp ku ci ne da ne da nga bëgg a nekk chef d'État est-ce que ñoom seen politique bi ñoom wekkuñ ko ci élection ak. fa falum njiitu mais cest à c'est-à-dire loolu la Macky réussir. et c'est ça le problème. dafa am deal deal day direct comme day indirect. deal bi nu mu nu mu indirecté noonu. c'est-à-dire bi. mooy même sur les candidats. Mhm. Macky day créer ses propres candidats. de législative. sa benn interview mu yàlla na wax ne Karim Wade ak kii di Oumar Sarr ñoo nekk les principaux alliés du président Macky Sall. waaw mais euh, aw dëgg. waaw dafa mel ni am nga dëgg de élection yi de gisul leen ñu taxaw yooyu élection yooyu mais Omar Sarr après nan la taxawee tey. Hmm, Omar Sarr fu mu nekk tey na fu mu nekk tey. kenn xamul. ma nga ne ci dialogue national. waaw. Decroix bokk ci dialogue national. waaw. front national front. front bi ñu créé woon. Mhm. la euh, le front de résistance. Mhm. anañu nekkuñu sa dialogue national dialogue national. instant bi ñu nekk dialogue national Macky Sall mi ngi piétiner suñu constitution. Karim moom exilé na moom. non moom mënul ñëw. mënul ñëw yooyu pas moom tey ñu ngi ñu ngi def la neex. Guy Marius Sagna bi rek mhm. exemple la la Karim Wade dugg sax exemple la ak ki nga xamante ne. mooy Khalifa Sall. comme moom daal kay wax dégg ko aaye moom Sénégal fi ñëw non ak la radiation de Sonko. waaw loolu tamit c'est un problème. c'est un aussi qui est mm. bi ñu ngi koy ku deful dara nga radié ko de l'administration ñoom ñëpp bokk ca forom ba ne dañuy waxtaane réew mi muy deuxième ñu ngi bokk ci dialogue ba. te dialogue bi si si. Euh, non diversion la pour fàttaloo Sénégalais yi. l'essentiel. seen électrocution électrique électrocution financière bi ñuy dund ci courant bi on est électrocuté on est affamé on est assoiffé. Ebola par régime. mooy Ebola économique bi ma la euh, wax maintenant c'est Ebola bi ñuy dund ñun nga xam ne mi ñu rey ñoom ña nga toog di dialogué di waxtaan est-ce que loolu yow yaakaar nga ne xel nangu na ko. moo tax nag ñu wax dil bi te dil bi dafay am kii du jeu intermédiaire. day nekk un élément de de l'opposition un jour viendra les gens vont le dire maa ngi wax ne yow ki nga xamante ni ne moo joxe mooy taxaw yaakaar ne leaderu opposant la. fekk entre Macky Sall ak opposant yow yaa nekk si diggante bi di dox pour diviser. Mm-hmm. boo yaakaar nit ñi xamuñu la te te te boo bàyyiwul li nga def nañ la te ki may waxal xam na bopp. te ñoom ils avancent à visage couvert. daal non non mais à visage non non non c' est des c' est non non dañuy sol benn manteau. waaw bi nekkee ci plateau télé yi. di kenn amul fit actuellement fi ma lay wax nii. Hmm? ku ñëw mën a def déclaration je te parle des partis les ñi nga xam ne dañu leen xam. wala les leaders yi ñu war a xam. kenn du ci def communiqué appel à une mobilisation de tes militants. kon dafa mel ni euh, lu loon yërim euh, di wax gars yi euh, di koy sànni xeer dafa mel ni yaa ngi koy jox raison de. lu mu wax. nee na kii di njiitum réew mi di Idrissa Seck moom il est en constant démarche avec. non dama ne ñoom ñëpp laa boole. ok kon régime. kon man dama gëm ne. kon Yérim xam na lu mu man dama gëm ne. ay wax tey wax suba amul ci bokk wax su may wax. Mhm. su ma waxee tey dama war a toog deux ans wax loolu du wax ko xamante ne tu es appelé. à diriger le pays à diriger le Sénégal Sénégal amuñu culture boobu. Mm. te mën na ko defee nii nag pendant quatre cinq euh, cent ans pendant cent ans fa muy toog lay toog du bouger un mètre. comme mun nañu wax fi ne instant yi bu ne opposant Sénégal benn opposant rek la am. Sonko la Sonko non cest à dañ koy teg ci critère. que mu neex que mu naxari. Sonko la. c'est-à-dire li nga xamante ne tey bu ñu doon toog di seet ci critères yi nga xamante ni dañuy xam ne kii moo fi toogal di défendre Sénégal. Sonko hmm. Sonko la.